su may dellu sa tànk sama tànk sa mbagg sama mbagg. ana mu moom Mansour. nga Mansour heure dafa jël ay garab. xanaa yow da tëx. danaa ci def la ma moom ak la ma moomul yëpp. soo tëddee nelawal. te xam naa ne tamit doo ma gàccal. mukk bu yeboo nga xam ne balaa yàgg. ma doonu sa alal doonu say kër. doon naa la say jabar. parce que genre mel ah. toog ci kaso bi mooy li gën a sedd ci yow. Jusqu'au 15 août, plus tu utilises ton calpé, plus tu gagnes. Orange Monnaie. Tous les moyens sont bons pour boire du thé Floria. Floria, Floria, Awalibiz. Retrouvez les meilleures marques africaines sur awalibiz.com. Achetez en ligne, nous livrons partout dans le monde. Au Royal pour vêtements et accessoires Abarings bijoux pop Shop Kantra Mosel Soubabel Models Dit Kamusa. la femme qui s'habille à Versailles, c'est l'africaine, l'européenne, l'asiatique. Euh, une femme qui est forte et une femme qui est surtout fabuleuse. Bijoux, Jewelix Store. Nabou Création. Divine Lingerie. M60. Nene Yaya. Matidi. By HLM. Votre partenaire numéro 1 en cheveux naturels. 77 087 11 11.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

wow soxna si ma dimbali la niroo naa ku soxloo dimbal mën laa sama bopp soxloo ma dimbalu kenn dama la bëgg a dimbali rek bul ragal parce que man gentleman la you know waaw dama la bëgg a dimbali rek ndaxte tamit mun ma romb fii gis nga nag ci problème te duma la jàppale you know sama yaay noonu la ma yare te bu ma la dimbaliwulee dina ma mere daf ma ni foo fekk jigéen dimbali ko soo ko mënee loolu la rek <coughs> te this looks bad. soxlawu ma sa dara wala yow dangaa tax doo dégg xoolal demalte nga may ma sama jàmm. ah comprendre naa la ah jamono yi jigéen ñi soxlawuñu góor gi. foofu lañ toll vive le féminisme. Ah. alors gis na ko jege nga ko. waaw gis naa ko jege naa ko def naa premier pas yi she is a wild cat vrai segg la waaw. waaye dañ ko soxla Mountaga kii kii rek moom mënuñu garantir ne Rama du mus a génn fi mu nekk su nar a génn kaso moom ñu suuli ji ko rek. foogoon ni xale bu len waxe deug bi warna doy. yow Mountaga est-ce que ça va yow xale yi duñ la gëm xale yi duñ la mës a gëm yow da nga fone ne ki bi deug bi dafa yombé ni yombul de waaw mais su fekkee dafa yomboon. man mënoon naa leen ko wax mais xam naa ne duñ ma gëm waaw dëgg bi yombu a nangu de man mi sax di wax ak yow nangu ko yombul. you're right. wax nga dëgg dëgg neexul dañuy wax dëgg kaani la waaw waaye time heals bu yàggee dina ko miin hmm? mun tagga mun tagga doo leen wax tous naada rien soreel ma xale yi ah. bu leen jege mun tagga kura doo ma wax ni du ma gis xale yi et puis xale yi Man, my son... Hey, hey, hey, shut up man! You are crazy! may la lan mooy yoonam ci histoire bi. da nga réer xamoo sax kuy monsieur Mbaye wala boog ki nga ko foog du moom. comme que léegi ay waay yu bokk liggéey lañ. dañoo bokk benn gaal. léegi pour gën a yaatal waxtaan bi rek est-ce que mën nañu am ay xibaar yoo xam ne ci sa démb ak sa tey pour mu gën a leer. ci lu wér ndaxte man dama weex comme percal te bu paree samay loxo set wecc macha allah.

may Thérèse foo jëm ak sa valise. Ouli damay dem. lu mooy damay dem. yow may Thérèse instant bi lañu war a gën a booloo nekk benn nga ni dangay dem fan nga jëm. gis nga Marie gis nga sa yaay fi mu nekk gis nga li muy daj yow amuloo sax yërmande amuloo xol. bu la neexee bu la neexee nga ne aw ma yërmande waaye lii ma topp di laajte sama àq la ak sama yelleef lu ma war a xam la. man maa si ëpp ful dem di ko laaj leer na ma ni même question yi moo nekk seen xel yi. Nang leen dem si sama yaay laaj ko ko parce que xam ngeen ne du leen wax dëgg yow waat ko waat ko Pape Demba ni yow wóolu nga sama yaay à 100 ngeen di ma rab xoolal indi leen ma. may Thérèse xam nga la laa la yëgal yow lu la may dafa ëpp de doy na sëkk yëgal ci sa nekk laa la wax sa nga indi valise bi demo fenn sama valise man damay dem. may de de ko mu dem. demal sa yow Pape Demba lan mooy bàyyi ko mu dem bàyyi ko mu dem. lan mooy bàyyi ko mu dem yow war nga wax kii bàyyi ko mu dem kii ci sunu responsabilité la nekk sama yaay bu ñëwee lan lañ koy wax. sama yaay moo la gën a bëgg ma dem moo la xam moo la gën a xam ne fii mënatuma fi nekk dund bii dee moo ma ko gën a. mooy Thérèse léegi ñun bëgguñu nga dem ñun bëgguñu nga dem mooy Thérèse. jàpp si rek bu ma def nii ngir yàlla bàyyi dem bu dem ci ma fi bàyyi xoolal ci ma Putri mendote iki menut. Baik kamu dem. Abdi mayau yai tahu doa yang terserah kejinga baik kamu idem. Ah? Pape Demba nga taxaw ni di ma xool. mënoo def dara. yaay ni bàyyi nga ko mu dem nag lépp lu ko mënti dal ci mbedd mi yow mii laay tenir pour responsable dëggam yow mii taaw yaa ko mënalul dara yow pusal. fàttewoo suñ soirée bi tey. yow xam nga ne soirée yooyu duma fa dem ay soirée jazz moom duma ko déglu te duma ko fecc Baara Mbaye laa xam. toi aussi ma loolu waxoon nañ ci ba pare wala boog robe bi ma la jëndal dala neexul. su fekkee sa robe boobu moo tax ngay wax man dama ci seen soirée tubaab yooyu soirée boo xam ne ay fourchette ay paaka man loxo laa xam ak kuddu. kon loolu ngay ragal ne t'inquiète pas dina la jàngal ba nga mën ko. man daal dew ma daal dew ma dew ma fenn. <sighs> d'accord comme demuloo man tamit du ma dem on va voir ñu seet su fekkee dañuy commander traiteur wala nu muy defee mais je n'irai pas sans toi hein. ko fi yow nga yàgg bëgg tas suñu kër jaxas sa famille bi moo la fi indi. Pape Demba li ma yàgg bëgg mooy ngeen xam dëgg bi gis nga nu mu metti metti metti il faut ngeen jàmbaarloog dëgg bi Pape Demba ah mais yow mënoo continuer nii di laaxu sa gannaaw yaay si pas possible màgg nga dootoo xale Pape Demba il faut nga wone ne yow góor nga Pape Demba et sax mag nga léegi mun nga jël say responsabilités Pape Demba jël ay décisions. loolu la te Pape Demba am na loo xam ne il faut ma wax la ko gis nga sëru rabal biñ la bootee bi la sa yaay bootee ay fen kese lañ ràbbee waaw ay fen kese ay kàcca rek. waxal lu la neex sama yaay mais mënoo fexe ba du nekk sama yaay ba keroog may dee. Pape Demba ah. lu xew fii. léegi góor yàlla dëgg nga comme ma leen comme la yow la kan ah gis naa ni danga ma fàtte fàtte nga bi ma lay yóbbu école bi nga nekkee tub tànk fàtte nga bi ñuy basket waaw mais comme que fii moom fu mu ne fàtte na mais soo yi na ñëw garaaw kam kam pile noppil dafa non pile. Marie Thérèse nga doon wër nga que Marie Thérèse n'est fi là. demain, demain. ay demain, de you yow lan la dal da nga say dal dama sonne ci jeu bu eh Muntaga déglu ma bu baax xaw ma danga sonn xaw ma fii doo fi def dara doo leen wax dara bul jege sax xale yi Mountaga. yooyu yaay kan ba di ma wax lu mu war def te wala lu mu warut a def. Mountaga doo fi wax dara laa la wax. xam nga lu ñuy def léegi bàyyi ma régler situation bi. Mountaga doo régler dara. moytuma jël naa sama décision et puis loolu moo gën si ñëpp dégg nga. kilifa Mountaga déglu ma 15 août. Plus tu utilises ton calpé, plus tu gagnes. Orange Monnaie. Découvrez les super unifiants et clarifiants. Alpha arbutin 3 plus papaye et gluta banana, un temps d'avance sur la beauté. Malaysia pour femmes, Malaysia et homo pour hommes, sont les lignes complètes de déodorants parfumés. Pour les ados, voici les Malaysia bonbons pour une sensation parfaite. Pour plus d'informations, www.mirato.it. Oh Royal, Burundari. Bienvenue chez Bamba Partenaire Jess habillement du grossiste ci tenue africaine. Ou à diaspora de 25 commandes nous ñu livré leen par DHL numéro 77 774 09 71. Pour vos changements moteurs, rien ne remplace l'expert au garage. Mountaga Massa Massa dégg nga xam nga sànq dama meroon tuuti rek waaw ah waaye yow moom xam nga ne bu baax ne bugguma la def dara lu lay metti xam naa ni toroxal Rama neex na la trop mais déglu ma fii lenn laa lay wax xale yi seen yoon nekkul ci seen xiiroo ak ñaayoo seen xeex ak seen xuloo ak yooyu yëpp nañ ci génn ba mu set wecc leave xale yi sama yoon nekkul ci ñoom waaw sama yoon nekkul it ci la leen mën a dal su fekkee ne pour jot rama dama war a jaar ci kaw xale yi dama koy def waaw yow nag yow baal naa la waaye kantaa nga ñaan ma pour ma baal rama déedéet lu mu def lu bon ci àddinam yépp dina ma ko fay. ñëwaat nga yow dong indiwoo mari ma Marie Thérèse génn na kër gi dem na yoonam mais yow lan moo tax téyewoo ko boo ko téyewoon dina dem yow Pape dem, lu ma la wax toppatoo sa rakk yi garde leen aar leen toppatoo leen yow loolu mënoo ko yaay yow xam nga ne Marie Thérèse mënuma wax dara ba mu dégg ko pour moom asamaan si buy daanu sax mu dégg ak benn loxo te yaakaar naa nii baax na mu génn mu mbëkk mur bi mu xam ni dafa juum nekku ci dëkk bu ko defee dina dellu si ci kër gi yow yaa ñàkk jom benn doom bu góor mënuloo ma dara mënuloo ma lijjanti tus yow nga yaakaar yow yaa may génne fii fii man gën naa ne fi laay dee yóbbu ma suuli maa bul wax loolu am naa solution te dinaa la fi génne ci lu gaaw am nga solution duul. yaay dinaa la fi génne yaay. duul bàyyi ma fii fichier. ñàkk jom yow doo góor defal li fu góor. yaay yaay yaay dinaa la fi génne dinaa la génne ci safara bu tàng bi yaay yaay dinaa la fi génne dinaa la fi génne. yaakaarutuma ne fii naa fi génn xam naa ne dee moo ma fiy génne te dee boobu mun na dal ci man à tout moment maa ngi koy xaar. xam nga la laa bëgg nga xam ko problème boo gis am na solution te yow solution bu la génn fii am na de. li ma def benn juge duma ko baax Rama loolu nga yaakaar rek ma jaarasi problème boo gis am na solution. man am na yaakaar ne da ngay génn fii te bu soobee yàlla di nga génn fii. <laughs> yow yaay kan. <laughs> sacré ram bii mooy bu mujj ma la koy wax yaa ngi may dégg bii mooy bu mujj ma la koy wax du ma si jaarati ñun dinañ la génn fii bu soobee yàlla. ñun yéen ñan. <laughs> ñun rek laa la mën a wax. ni lan ngeen di xaar ci man. nous <laughs> xaar ñu dara si yow xanaa kay sa doom Pape Demba. eh Ngor ma la eh rey laa gën gaaw. sama du eh Je may gaañ. déggal li ma wax eh yaa may gaañ dindi sa loxo. di doyee sama doom eh dama bëgg nga dindi sa loxo Tu es di doyee sama eh. dee dara sa doom xanaa kay ñu may ko chance mu lan <laughs> Rama. information အောင်မစစ် access ah, dimbali ñu ñu démanteler le réseau bi ñun en retour ñu dimbali la génne sa kaso il me suffit de passer un coup de fil au procureur léegi ma génne sa ndey kaso yenn yenn yoo xamante ni kenn du la ko yenn mooy sunuy bàkkaar sunuy ñaawteef sunuy tiis sunuy nakar te loolu mooy firndeel sunu jaar-jaar te du dañ mukk illaa yow ma diin bismillah toogal merci beaucoup <laughs> Fatou xam naa léegi mu ñew. qu'est-ce que je te sers à boire en attendant non merci beaucoup ay jus yu neex am fi dé. Xamna naa mais merci beaucoup <laughs> Fatou léegi moo yegg si saa ko ba mi ngi doon d'accord hmm. en tout cas j'en profite aussi pour wax la ne kontaan naa loolu bi la mansou tégué ci tétu entreprise bi ndax xamna né mënu gis kenen ko la gën ah vraiment content de ci compliment yi nga def xaaruma ko woon mais merci beaucoup. Merci beaucoup..! il faut dire que j'ai beaucoup appuyé nag. Hmm. mais Je euh, naa la woo sax parce que dafa am ay euh, partenaires yu ne woon dañu bëgg ñëw investir ci capitalu entreprise mais bon xam sais que tu n'es pas venu pour parler d'affaires nañ bàyyi ba un jour. Inch'Allah comme ça ñu gën ci mën a waxtaan. pourquoi pas ñu ñu caler rendez-vous gën ci mais si pourquoi pas benn déjeuner bu fàtte dara ji rek. d'accord na ci loolu. <laughs> baax na aadama yéeg wala Fatou. ok xam naa léegi mu ñëw incha allah. incha allah tuuti rek. merci beaucoup ok merci. Fatou. sama nene tuuti. Hmm? ni ngay fawee nii baa wóor na. ma nee naa la mbir yi dama ko fas yéene tey sama loxo. Hmm. li may def xam naa ko bu baax yow wóolu sa nene tuuti rek. <laughs> kon boog xaaral ma defaraat sama toogaay ba mu jekk te toog seetaan en tout cas daal lenn rek laa la mën a wax gis nga sa xol bi nag ma ko préserver bu baax a baax a baax bul nangu kenn ku la ko yàqal walla sax. nga jël ko def ko ay photocopie yu bari di ko distribuer te jël original bi nag denc ko pour sa bopp <laughs> ma sama xol bii nii xeer la dafa dëgër këcc te ragaluma loolu sax len de xam naa ko su ma roccee damay jam te bés bu ma rendee damay jéggi wax ji wax ji lii benn njaxital kese la mën a am ma bàyyi la nga préparé Bien habillé.